tombum ñaareel bi mu indi woon mooy nu waxtaane wàllu xam-xamum am njàngam mu tàmbalee ko ci way juróom maam borom Cham alxuraan mi nga xam ne ñu xam ne màddatu ku la almi ba te ku xam borom Cham xam ñi mu jàngal kon ku ca jaar waaw melo rek lay doon waaye mu jaar ci béréb yu bari nag wax na léegi Serigne bu Bousso ñi nga xam ne aalimun amil bi almihi walam yamin borom xam-xam bu jëfe xam-xamam te jéngul ndax fe feeñ ne ci ak sàmmoom waaye jaare ci boroom daarul maxti bi nga xam ne it ku mu jàngal sëriñ bee jàngal ndax Bàmba ko jàngal alxuraan ak xam-xam xam-xam boobu it géeju gëm ca géeju njariñ yi ci nekk sëriñ bi moo wax ne inda illaahi nicmatun la tanfad xaba ahali man baan min yaawet yàlla denc na xéewal gu jeex waaye ki mu koy jox nag mooy ki koy jaamoo ci xam-xam ak waaxlam bi annama tafawutul wara na am wa din yakunu fasbira kon nit ñi ñu ngi rawante ci xam-xam ñu ngi rawante ci diine kon buntu bu am solo la boo xam ne indi nañu ko te sëñ Tuubaa nee na woon yéen moom seenu taar mooy xam-xam ak diine nga xam ne dog bi gën a jekk ci kilifa mooy xam-xam ak diine beneen ab yee bu mu ab yeewu it bee moom mooy bosam waaye Serigne Cheikhouna dafay mel ni ku ñu tudd wax fi mu feeñee wax ni ko seq ci way jur wax fim jaar ci askar wu sell wax fi mu jaar ci xam-xam loola lépp la muy jur mooy makaarimul axlaaq tedd ngay jikko ndax yi ñooy wommat rafetul jikko kon dangay ñëw ak ñun ci sëriñ baara ak jikko jikkoy sëriñ Mouhamadou Lamine moom maam borom cham ndax defe naa it ku la mën a jur te amuloo jikko ju tedd du gën loo mën a xamit te amoo jikko ju rafet du gën ndax moo waral ñu ne nit bu amee xam-xam te àndut ak teggin te teggin jikko ju rafet la lay mel ni haba an mansuura waaye nit it bu fekkee ne fu mu mën a bokk ak lu mu rëy lay jikko koy sàmm jikko moom mooy sàmm cër ndax noonu la mën a mel ndaw diwa ko jur noonu la mën a mel ngir lim xam noonu la mën a mel ngir fi mu bokk jikkoo koy waral bett na ma warul ne ma rek lii di jikkoo nu ko war a defee jikkoo koy feeñal waaye ku toog rek kenn xamul ki doon mënees na laa bañ a jugé kon jikkoy sang bu sell boobu la ñuy dikk muy Serigne Bara Khourédia nga ñëwal ñu mu yaatu incha allah ñu door a dellu si ci yeneen bokk yi ak tomb yi bokk yi ni ñu ko waxee woon. jataay bi ñu ngi koy amele fii ci kër Serigne Cheikh Tedd moom Serigne Baara Khourédia ngir di waajal bis bi nga xam ne mi ngi war a nekk altine incha allah ci penc mii di pencum Cham ñu seqal njaboot bi jataay bii euh, ngir war a waxtaanee Serigne Baara Khourédia seq ko kilifa yi ma leen waxoon léegi ànd ko it ak organe de presse yi nga xam ne euh, ñu ngi am taxawaay bu rafet boo xam ne bu mat la kon ñu jox Serigne Cheikhouna mu ñëw ànd ak ñun ci jikko yi Serigne. baara xurey أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخير قديمه وسلم تسليما مبكي جلدي مبكي طالبي gannaaw bu nu leen di yoo siyaara leen di balu xaq ñépp di sos sunu ci nuyoo kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo daaneel seen kàddu léegi muy sëriñ Murtada sëriñ Gànna Mesere sëriñ Maam Balla euh, di jaaree foofu di nuyu ki nga xam ne mooy suñu kilifa ñun ñëpp muy as Cheikh Mouhamadou Nil Mountakha ibnu cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool tamay ko ak wér di ko ñaanal itam sëriñ Abdullahi Mbàkke yàllaay buur di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi moom it tamay ko ak wér ba mboolem naal yoo xam ne naal nañ koo liggéeyal seen maam bi tedd ya sunu borom jàppale leen bay yegg nu kawe njort di nuyu itam Serigne Cheikh Tedd mi nga xam ne ci péncam lañu nekk di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool tamay ko ak wér ba liggéey bi mu naa liggéeyal ko Serigne Touba lépp yegg te rafetu fekkin di ko ñaanal it mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo maase teew fii dafa mel ne rek ni ko Serigne Gana Messere waxee buñ ne jëm wax mooy kan. yëgg itam ci am njànguwaayam te mooy marxala boo xam ne amul jenn kilifa joo xam ne am nga jenn ndam lu kawe loolu muy jàng ak jàngale gannaaw bu na xamee loolu ci jëmm ju tedd jooju muy Cheikh Mouhamadul Amin Baara Khouréje moom membaru Cham xam nañ ci moom ay jikko yoo xam ne defe naa ne mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngale waaye itam mooy li nga xam ne moo taxoon a jug yonent bi alayhi salaatu wasalaam jëmm la woon joo xam ne ku sori woon na ci ak jaamu yàlla doonoon ci misaal ci ku nekk mu man ca wéeru sukkandiku ca ngir fa mu mën a yegg ci boroom mu yegg fa waaye itam ak topp yàlla goo xam ne topp gu sell la gu amul daray nëx ci sëriñ Bara Khourédia bu ñu xoolee ak dundam dañ koy fekk mu mate ko sëkk rafetoon it jikko rafet jikko goo xam ne jéggi na dayoo ci anam gu nekk waaye nag yemu ca mu boole kook ak dëddu dëddu àdduna boole kook sàmm waaye daan jëflante ak nit ñi jëflante bu rafet jëflante boo xam ne euh, amul kenn ku mas a jëflanteel te nanga ko jàppe woon yokkoo ko ne woon koo xam ne ku dëgëroon ak ngëm yàlla la tabe woon it ci mboolem yoon yi nga xam ne yoonu baax la mboolem li sëriñ bi bëggoon mu nekkoon ci moo tax keroog bi shaacir bi yëkkati xalimaam ay xala jaatam di yëngatu mu ne ko indal ataaya la mun hadun bi saaxatihi wala yamunnu wala yamullu bi niam mu ne moom mooy jëmm ju tadd mooy jëmm ju tabe joo xam ne loxoom jamono bu nekk day dotteeku rek waaye la mu lay joxit du ca ñax mooy du la jox ba noppi di wane ne jox na la nàngam waaye itam du yokkat ca la muy joxe ki ko ñëwal tey ñëwal ko bëccëg ñëwal ko ngoon xàmmewul kenn ak tabam noonu la meroon ku bari woon ak jaamu yàlla itam ndax bu fekkente ne dañ koo tuddee yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ tubaa tudd ko wax ca la mu ca wax lépp borom saam itam meññi ko ak lañ xam ci borom saam ci ay melokaan ak i jikko yu tedd yoo xam ne moom la làmboo laa xarwa ay yaxdul fata xadwa walidi na ko imaamul Hariri yi waxe woon ne doom de bu jógee sol dàllu waay juram mu ne ko laa xorwa du njombe loola kimtaan nekku ca mu doon jëmm joo xam ne it ku woyofoon la lool waaye teddoon tabe ci anam gu nekk takkaayoo li ñuy tuddee makaarimul axlaaq waaye lépp loo xam ne mës na koo dogu rek da ci daan wëy ni nga ko xamee ci ulama ul mutasawwifiina yi nga xam ne bu nu dogoo ci mbir ba noppi wëlbatiku génnaat ca lañu dogu dañu mel na ci ñoom ku murtat niñ ko xamee ci biir dundu Sëriñ Tuubaa moom noonu la meloon nekkoon itam ku yomb ak xalifa waaye ànd ak loolu lépp mu nekkoon ku néewi wax loolu ba daawul wax sax lu may aw yiw lépp lu mu daan wax rek buñ xoolee njariñ lay doon nga mën koo dellu ci alquran waaye nga mën koo delloo itam ci xaddiit waaye du wax lu dul luy jariñ loolu feeñ na ci ci aqwaalam yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ñun ñëpp ku ci ne mën caa dund te doo jote kenn ci loo xam ne lu ñaaw lay doon muy xekkam yi nekkoon it li muy néew néew wax dañuy gis ne yonent bi daan wax ne euh, képp koo xam ne gëm na yàlla waaye gëm na bis bu mujj ba maa ngi koy digal nay wax aw yiw te mu noppi wax ne itam képp ku noppi da mucc alayhi salaatu wasalaam ci biir loolu am na genn kilifa gu mag benn boroom xam-xam bu ñuy wax busur jamhir dafa mas a wax ne ah nit de boo ko gisee mu bari ay wax na la wóor ne dofa ngi noonu ida raayta rajula yukthiru lkalaama fastayqin bi junoni waaye dañuy gis na sëriñ Mouhamadul Amin Baara Xureja waxtu wu nekk la muy wax rek luy jëmale nit kanam la luy jëmale am réew kanam la waaye itam luy defar la imaamul ali radiallahu anhu wax ne nit ki de saa bu am xelam matee dañuy gis ne ay waxam day néew ida tamma al aqlu naqasal kalaam benn shaacir nose ko ne ida tamma aqlu lmari qalla kalaamuhu wa ayqin bi xumqi lmari in kaana muktira loolu mooy nit ki jamono bu am xelam matee rek dañuy gis ne ay waxam day néew waaye koo gis ay waxam bari te wax ja amul benn njariñam na xam ne dofa ngi noonu waaye mu doon jëmm joo xam ne ku amuk wegu la am xëy ba koo xam ne yàlla rekk moo ko ko jox waaye itam xëy ba gi nëbbul jamaal bi danga gis jëmm boole jamaal ak jalaal am ci lu muur loo xam ne am na lu ci nit ñi gën a yittewoo mu feeñ moom itam yàlla dimbali ko ci wàllu googu doonoon ku daan sàmm diineem mu jaraloon ko lu nekk nga xam ne diine rekk la defoon mu doon kenoom diine rek la defoon itam mu doon sukkandiku waaye it loolu tërewu ko mboolem melo yi nga xam ne sëriñ Touba sàkk woon na ko ci ab taalibe mu melowoo ko dafa ñëw melowoo melo yooyu ba daanaka amul kenn koo xam ne jot na ko ci nekkoon mu saadiq ragaloon yàlla làq itam ci ay daraja ak i ngëneel ci Cheikh Ahmadou Bamba ni ko benn shaa'ir waxee ne cheyqun taqiyun muridun saadiqun walahu la dal qadimi masiyatun wa mumbahimi mu ne sëriñ a ngi noonu ku ragal yàlla yàllaa ngi noonu murid saadiq a ngi noonu a ngi noonu joo xam ne la mu làq ci ay daraja ak i ngëneel ca Cheikh Ahmadou Bamba nee na loolu kenn mënu koo xam doylu woon loolu tamit doylu goo xam ne kenn mësu koo gis ci loo ko wërta gis wala nga di ko dégg ci loo ko wërta dégg lu may na ko sëriñ ba yaree rek alayhi salaatu ba muy jàngal doylu daf ñoo wax ne doylu de mooy koom mu dul jeex mu doon jëmm joo xam ne it bi mu ñëwee mboolem ku mu maasalanteel ci jamono euh, xool nga ko bët naw nga ko ay jëfam te boo sañoon itam danga mel ni moom wala danga ko jéem roy donte loolu na ko Cheikh Saalix waxee woon am benn boroom xam-xam bu ko waxoon ne fa tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkiraami falaahu waaye sëriñ Baari Xoroje nekkoon koo xam ne lislaam boo fekkente ne woon raaya la mu doon ñu samp ko ñu bari géew ko dafa mel ne dafa yegsi rek yenn raaya lislaam boobu noonu ci jiitu gum jiitu ay kemam ci mboolem ñaari kër yi ni mu ko waxee ne yaa xaamilan raayata al islaami duna mira sabaqta jiilaka fi daarayni kullihim mu ne ko réer de ni mu fi meloon yow yaa ñëw dindi ko wuññi ak réer bi nga ko wuññee loo fi saxal xam-xam rek bu ànd ak teggin daan waar nit ñi waar goo xam ne mboolem luy ràggi xol lu ne ci seeni xol dana daal di dañ ba dana seet wicc kashafta jahlan bi taalimin maa al adabi maa al mawaidi tawdixan li di saqami waaye nee na am na ci xam-xam loo xam ne moom sëriñ Bara Khourédia nit mësu koo am jinne mësu koo am foore yi jiitu woon it mësuñu koo am loolu misaal doy na ci li ci sëriñ Touba waxoon ci ak feeñam xam nga loolu lu nëbbu la lu bari lañ ca mën a xam rek mooy la wax waaye lañ ca xamul mu ëpp nekkoon jëmm joo xam ne wax fu waqfu alquran rek jàng alquran suba ak ngoon moo doonoon aadam loolu mooy li nga xam ne moom la baaxoo woon daw ca yuqat euh, jamono bu nekk itam mu daan ko booleeg ak i nawaafil ak i awraad waaye itam ame woon ak dogu lool noonu la ko waykat bi waxee ne man muy moom sëriñ baari xuraja mooy ki nga xam ne da'buhu bila malalin loolu rek la ne woon mu ne ma an nawaafili wal awraadi wal azami waaye itam ci biir loolu mu doonoon jëmm joo xam ne euh, réer dafa naax saay ak deset itam naax saay naka noonu mu mel ni jant ci xam-xam akum njub mu boole nag njub ak diine euh, ar rusdu wa diinu wal islaaxu fi abadin mu ne yooyu mooy chiaaru da sayqi wal infaaqi lil xurumi bu ñu waxee chiaar mooy li nga xam ne moom ngay jiital ci sa biir yére mu ne moom sëriñ Baara li nga xam ne moom lay jiital ci jëmmam mooy njub ak diine sàgganewu ko bërëb yi nga xam ne moom la daan sanc itam te xam naa ne bu ñu demee ba ci kanam dana ci leer lam ko daan defee yépp ci xam-xam rek la ko daan teg nga xam ne mësu koo sàggane mu ne nag lii mu la wax yépp naka pexe ba sëriñ baara xuraja marul mel nii looloo lan mooy pexe mi ba sëriñ baara mu warut mën mel nii ndax koo xam ne jamono ba nga doonee tut tànk ci waxir mësuñ laa xamee ci lu dul luy indi xam-xam mësuñ laa xamee yit ci lu dul loo xam ne njariñ lay doon fa kayfa la waxuma fi sarqi shababi wa rama fi'lu saba li bijaadi al ilmi wal xikami kooku mooy cheikh Mouhamadul Amin Baara Khourédia nekkoon jëmm joo xam ne it nit ñëpp mën nañoo sàdd ci moom lépp ci dëddu waaye itam ci dëggu ci lépp loo xam ne iraada la waaye xir ci liggéeyal cheikh Ahmadou Bamba toroxlu woon daan mokk mokklu ndax yonent bi mas na wax ne laysa lil mumini ay yadilla wala aw yudilla nafsahu mu ne julli bi daal na xam ne nekkugul ak jullit li fekk mi ngi toroxal bakkanam waaye fekk na jamono ba ngay toroxal sa bopp booba yàlla ma ngi lay yëkkati ay jikkoom daal dafa wisaaroo ci fépp muy Afrique muy Bawal wala sax mbooleem xanaa ku xamul sëriñ bi wala ku jàngul ak dundam waaye ku ko jàng ku nekk rek mën a jariñu ci ak jikkoom mën a jariñu ci léppam axlaaquhu intasharat Afrique wa fi bawalin ka misli ilmin wa juudin qul ma alqidami xam-xam bi mu ne woon ci moom ak tab gi ne woon ci moom ak njàmbaar gi ne woon ci moom ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu ne loolu misaal la ci te dafa wisaaroo kenn ku ne xam na ko ak tab la woon waaye médecin la woon boo xam ne ku xereñoon la woon ci xam rag gi ab taalibe ak xam tamit la nga xam ne moom ca lay mën a jaare ba man koo faj taalibe bi ñëw li nga xam ne moom la soxlawoo dafa mane woon ak moom ci xam mutqin la ci lépp loo xam ne ab taalibe dana ko soxla mu doon jëmm joo xam ne it euh, royukaay la ci anam gu nekk bu dee ci jikkoom bu dee ci meloom bu dee ci am xelam bu dee ci léppam lu ci nekk rek sëriñ Bara Khourédia royukaay la ci woon waaye it euh, ay xemmim téefam lépp weesu wutoon Serigne Touba ay xel moom lépp weesu wutoon Serigne Touba ndax niñ ko xamee ci njàngalem yonent bi moo dañu wax ne maa ngi leen di wattandikuloo xemmam teef yu bari ndax loola de ak ñàkk gu teew la ànd ak loola bi mu ko xamee dafa daal di wàcc lépp dara ne wut xemmam teefam lu may bëgg Serigne Touba ak di ko liggéeyal te loola gis na ab liggéeyam ak injaazatam yi mu def yépp waaye ànd ak teel a taqoogum teel a taqoog jaamu yàlla ak teel a taqoo gum taqoo wéet di fàttaliku boroomam ni ko Muhammadul Busiri waxee woon ne alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan waaye wahakatan nujabaaw yonent bi lay waxal mu ne ko moom de alayhi salaatu wasalaam bi mu doonee xale dañoo xamoon ne dafa miinoon ak jaamu yàlla miin tamit li ñuy tuddee mboolem ibaadaat di rek waaye daan nangu wéet te booba xale la woon ci zahir waaye nee na wahakatan nujabaaw mboolem ku yàlla tànn itam ci noonu la koy jaarale ñu ngi daanale foofu suñu kàddu ba kàddu gi dikkat ci waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ Cheikhouna Mbacké moom sëriñ Sidiya ci tombu ñetteel boobu nu andi woon te mu ci jikkoy sëriñ Bara Khourédia defe naa bokk yi ni déglu ak bokk yi ni seetaan fu ñu mën a nekk ci jële nañ ci ji sang ak ji yaaram la mu jàng ak fa mu bokk résultat ba mooy jikko rafet di nekkoon ci moom te mooy féetewoo jaamu yàlla amul dogu mën a muñ wakkiilu ci yàlla tabe ak toroxloog jàmbaar ak sàmm ak noppi ak wegu ak doyloog lebet ak dëddu adduna ak nooy te dëggal ak matale coloré ak mooy saadix kon day mel ni ni boroom xam-xam yi tekkee makaarimul axlaaq loolu mooy sëñ baara defe naa tënk te melo yi yépp mu ngi delluwaat foofa ci al iradatu kon alhamdulilah li ñu doon waxtaanee di ko wax ci way juróom wa jikko yooyu rek la doon ci moom ndax koo xam ne taxaw ci ab waxafam ak dundal ay guddee mooy meloom kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ëllëg yowmal xiyaam ki may gën a jege mooy ki gën a rafet jikko waxit li gën a diis ci balaasu jaam bi ëllëg mooy jikko ju rafet Sëriñ Tuubaa leeraloon na ci ñaari baat yi ma waxoon léegi muy sang ak yaaram ko ma sa wax ñenn ci doomi cheikh yi doomi kilifa yi mu laaj leen ne leen ndax xam ngeen lan mooy sang ak yaaram xam léegi-léegi loolu lu xew la mooy sang bi ak yaaram sëñ bi ne leen ab yaaram bi mooy koo xam ne day mën a wut cere lay def ci wat yàpp yàpp wata jox ko aw nit ñu reere ba nopp fanaan ci deram di ko xas bu xëyaatee mu jox leen ko ab sang nag day mel ni dex ga ndar tubaab yi sax ca la ñuy sotti seen poti guddi ya waaye bu ñu soxlaa ndox mën demee amaat ko loolu mooy wane rek ne kilifa mën a muñ ak mën a jëlale ak mën a jégale loolu rek lay tekki kon melo yi sëñ baara melowoo it sëñ ma yaasin ummi jeng ab tubaab bu ko mas a luy yàq kilifa te yooyu sëñ Baara mucc na ci ndax wax ko ci jikko yi léegi sëñ Ba sëñ Mayacine mi jëng daa mas a laaj si moo ko mas a laaj sëñ Malick Bassine si la ab tubaab mas a ko luy yàq kilifa mu ne ko ñeent loo xam wax ko la wax nga wax loo mel xul ko loo am jaboo loolu mooy yàq kilifa entre nous kilifa du ko def. mooy koo wéetal na ko ma wax la ko mais na yem suñu biir fekk léegi-léegi entre nous entre tous lay doon ndax koo wax bu génnee na ma wax la ko sëñ bi ma ko wax léegi ci biir bu ko waxaat kenn daf maa doyloo ma doyloo la nga wax ko mu gis keneen na ko sëñ ko wax diw mu wax ma ko ngir ni ma def fi ma la tege tax ma wax la ko nga wax ko mu génn wax ko fen bu yàggee mu nekkoon entre tout kon ndeke loo xam wax ko ak lu la wax nga wax ko ak loo mer xul ko loolu la naqari nga kaas ko de yàq kilifa ba ca gën a doy waar nag loo am jagoo mooy doo te te tabe moom ku ñuy wax ba boole ko say mbir rek ab sangango waaw loo am téye moom bariwul njëriñ moo tax sëñ bi waxoon ne dajale baaxul ndax li nga denc doo bëgg mu manqué te loo ci dolli ngay wut kon doo joxe kon melow yi mu jiit di saadix feeñ na ci ay jëfam feeñ ci aw meloom feeñ ci taxawaay kon doon Cheikh Mamadou Mourtada dañuy ñëw ci ay injazaatam ay réalisation day mel ni ku mel nii ci xam-xam mel ko ci askan mel ko ci jikko ju rafet ay jëfam ndax li ma waxoon léegi damay bëgg ñi topp waxtaan bi man koo jariñoo ndax résultat rek feeñ na ci ñii ñu bokkal jataay bi tey ay ay ay sëti Serigne Bara Khouréja nga xam ne moo mel ni seen seen wéyjur bokk yi seetaan ak déglu di fi dégg xam-xam yu leer kon ñoom bu ñu waxtaanee yar waxtaanee xam-xam dana ne ah ñii de sañ nañ ko waxtaanee ndax ni mel la ca toppit mooy kon jëf doy la wutoon ne di way sama way jur rek doy la wutoon lam xam toog waaye da caa boole jëf nag ba am ay résultats yu leer yoo xam ne ku ne teg na sa bët bu ko defee jamono man cee roy kon Cheikh Abdoul Mourtada da nga nuy ñëwal ci ay injazaatam muy yenn yi nga xam ne jëf na ko ay liggéeyam ay jëfam yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Baara jëf na ko bisimilah. ngàndal jërëjëf sëñ Mame Balla jërëjëf sëriñ Cheikhouna Mbacké yaakaar naa ne waxtaan wi. leer na am na njariñ li nga xam ne lu ñuy waxtaane waaju baax waaye nda zikru saalihin tansiru rahma ak man araq waliyan faka annama aya waaye sëñ Bara Khourédia mënul ñàkk mu mel noonu ndax kuñ ne yonent bi sallallahu alayhi lañ la tudde mënul ñàkk nga am jukk yu baax yu rafet yu mel noonu bokk na ci jikko yooyu nga xam ne moom lañ fi doon waxtaane léegi xëy na yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ko jagoo bu ñu ko dippee sëriñ Bara Khourédia moom bi nga xam ne moo taxoon sunu borom di wax ne atiu llaha wa atiu topp leen yàlla waaye toppee leen ko ci yonent bi sallallahu alayhi kooku it moo taxoon sunu borom nan man yutihi rasula faqad ataa Allah bu ngeen toppee yàlla bu ngeen toppee yonent bi sallallahu alayhi mooy mooy topp yàlla ci yéen kooku it moo taxoon sunu borom di wax ne wa maa yantiqu anil hawa du waxe mukk ci lu dul lu ko yàlla wax la waaye du waxe mukk bànneexu bakkanam kooku it la sunu borom waxoon ne xul xul xul in kuntum tuxibbuuna allaha ni kon yuxbibkumullah kooku kooku la suñu borom doon wax ne bu ngeen bëggee yàlla bëgg leen nee na kon da ngeen di bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa li lépp nag maa ngi jublu rek ci mënul ñàkk sëñ Bara Khourédia mel ni mu mel ndax ki ñu ko tudde rawatina bi mu defee càkkuteef gi mm-hmm. kooku it moo taxoon sunu borom di wax naan yaasiin wal quraan al hakiim waaye innaka la min al mursalin giñ naa ci alxuraan di ñu xereñe ne yow ci ñi yàlla yónni nga bokk xalaa siraati mustaqim waaye nag foofu nga teg sa tànk yi nag mooy yoonu njub bi kooku moo taxoon sunu borom di wax ne subhaana allazi asra bi xabdihi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa kookoo taxoon sunu wax ne tudd naa sellu ka nga xam ne moo yéege jaamam ba jële ko ci guddi masjidul aqsa masjidul haram yóbbu ko masjidul aqsa moo tax sëñ Tuubaa ñëwoon ne ko la anta imaamu rusli xad jaa annahum talaaxawka fi l wal kullu xad salla newoon na ko bi nga demee foofe ca kaw fekk nga fa yenente yépp ñu daje nga jiite leen julli ñaari rakkaa kooku it moo li tax càppteef gi ma di ko indee noonu mooy li nga bëgg a defal sa bopp ak li ñu bëgg ci yow dadul benn boo gisee Sëriñ Tuubaa liggéeyam gën a kawee mboolem liggéey bu mu mën a doon daa wax ne raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu kon day mel ne càkkuteef googu yonent bi sallallahu alayhi ci ñu tuddoo ko sëñ Bara bokk na ci lii tedd ngay melokaanam ak tedd ngay jikkoom bu ñëwee ci li sëñ Gana laaj léegi ab liggéeyam bokk na ci sas wi nga xam ne sëñ Touba njëkk na koo joxe ci jumaay njaareem sëriñ Bara Khourédia bokk na ci ñi bàyyi sas woowa bi mu koy jébbale ci yóbbaale na sasu magam sëriñ eh, sëriñ moor bu sa xuréel kon loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ baara xuréja bokk na ci ay liggéeyam muy muy muy muy jumaa njaareem ji mi ngi wuuti it borom sàmm mille 1939 bokk na ci ay liggéeyam li mu ko wutoo njabootu si borom saam gépp kenn ku nekk wutal na la dëkkuwaay bi mu bi mu bi mu jëlee bi mu wutee bi mu wutalee borom saam dëkkuwaay ba noppi ci la wutal mbooleem njaboot gi kenn ku nekk dëkkuwaay ñoom ñëpp ñu dëkk ak borom saam foofu mu jàppe woon leen ni nga xam ne noonu la jàppee njabootu boppam bokk na ci misaal mi ñu ci mën a andi sëriñ Abdoulaye yàllaay buur yàlla na ko suñu borom yàggal dañuy nangoo ci ay kàddoom muy wax ne sant gi mu sant ay waajuram sant ko borom saam dafay mel ne sant gu toll noonu yi sant na ko sëriñ Bara Khourédia ngir ah, am njàngum alxuraanam bokk na ci ñi nga xam ne sëñ Bara Khourédia moo ko taxawe indi woon ko fii ci daara ji nga xam ne sampoon na ko te tegoon fa ku ñuy wax sëriñ Ousmane Seck kon ay réalisation bokk na ci ku daan yar la daan jàngale e, samp daara ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen ñu mën a wattu alxuraan ñuy jàng alxuraan ñi nga xam ne seeni xel mënta wattu alxuraan ñooñe ñu di leen tarbiya bokk na ci it li nga xam ne ci liggéeyam la bokk bi mu àndeek bi mu defalee loolu njaboot gi 1948 nag la ko fi si Mamadou Fadal andi la jox ko ndigalul mu jage si ko ngir ñu ànd liggéey bi bi mu ñëwee it mu jox ko fi ñaari makkaan yoo xam ne benn bi mooy bi ñu gën a xam te njaboot gi dëkke ko bi ci des mooy bi xam ne soxna mbenn mu si Amadou Fadal foofu la dëkke woon moo lëtti sa mbàkk it bokk na ci ab liggéeyam moom sëñ Bara Khourédia bi mu wuutoo borom sax rek moo daal di lotise Mbàkke loolu it xaay na kon daf ñuy may ñu dikk ñu dikk nag ci digganteem ak ku mel ne Cheikh Mamadou Fall ndax bi mu ñëwee rek dañoo ànd jumaa ji muy liggéey jumaa ji loolu la koy faral tënk sax damay wax am na ñetti mbir yoo xam ne sëriñ Bara Khourédia daf caa ràññiku ràññiku gu gu jéggi muy li ma wax léegi ci tukki bi sëriñ bi ak jumaa ji ak it liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Xelcom xëy na su ma ko waxee ginnaaw fekk ko fi rek dana dana am waaye su ma ko leeralee danañ xam li ma jub la wax tukki bi mooy li ma indi woon léegi rek ci aw turam mooy gane ak jamonoom mi ngi daje ak jamono ji sëriñ bi waaj di dem ci tukki bi kon loolu marqué na jamono ci boobu waxtu waaye jumaa ji nag mu doonoon koo xam ne daf ko ànd nag Cheikh Mamadou Fadal ndax daana bay ci ay barab yi wuute daan ko jébbale ngir liggéeyub jumaa ji bokkoon na ci sax liggéeyub jumaa ji metti gi metti woon tax na wax nañ ne daana yërëm sëñ Fàllu ci taxawaay boobu mu xamaloon ko ne nag eh, sëriñ Baara Xureja léggéey bii dana yegg sa yow boobaa seede nga ci doon réalisation kon bi gën a ci yoonu murid nga xam ne symbole la bokk na ci jumaay Tuubaa ca sëñ Baara Xureja kenn mënu ko ci liggéey boobu seede su may wax keroog bi nga xamee ne Cheikh Mamadou Fadel ubbi na jumaa yi sijaada gi mu taxawoon di ko jullee bi mu noppee da ko lan li jox sëñ baara xuréja da ko seede saa ngi nii li tax ma may may waxtaan nag di indiwaale ku mel ni si amul seeni xalaat dafa dafa dafa yaatu ci wet gu ndax bokkoon na ci ni ñu doon dundee ñoom ñaar doon nañ doxal bokk gi doon nañ doxal li nga xam ne mooy diggante li yàlla def seen diggante muy diggante mag rakk diggante taalibe sëriñ diggante mbokk ak mbokk diggante xarit ak xarit su ma ci ñëwee tuuti soxna mbenn mi ma tuddoon léegi rek Cheikh Mouhamadul Amin Xureja moo ko doon denc te doomi Sëñ Fall su ma ñëwee it ci nawlonteeg yi Sëriñ Fallu tudde na ko doom ba tey wax nañ ne ñaar la sax waaye kenn ki moom lañu ci gën a leer ndax toog nee fii ci benn bis nekk sëñ Baara sëñ Baara mee xalifa sëñ Saar am kilifa gunu fi romb ñuy waxtaan ba yegg ca loola mu wax nañu leen am na sëñ Baara Xureja moo xam ne de yaayam sax mi ngi fi kon loolu moo gën a firndewu beneen bi ci desit mu tudduloo ko doomam maa ngi wax ci nawlante gi ak niñ nekkee woon ñoom ñaar loolu it kenn nettaliwuma maa toog ci benn jataay daje sëñ Mamor moom la moom lañ tudde borom saam ñu ñu ñu ñu ci mu tudd lañ daje ñuy waxtaan mu ne ma may ma bala ngaa yàggal daan kooku de lii ñuy def nii tey gii maamam moo ma defal daan bi ma gënee jamono de Cheikh Mamadou Fadal daa woo sëñ Bara Khourédia ne ko demal nga tudd ko te tudda ko borom saam loolu moom moo ko wax ma dégg kon seen diggante ñoom ñaar diggante la bu réyoon diggante la bu kaayoon boo xamee ne yi ma wax népp dox na ci si gànn maa ngi lay wax ci benn jotaay rek ne la boo bëggoon a xam dëgg eh, sëñ Bara Khourédia da nga koy laaj ku mel ni Cheikh Mamadou Fadal ci laa wax ne it boo bëggoon a xam dëgg Seex Ahmadu Xaadal da koy laaj ku mel ne sëriñ Bara Xuree loolee Sëriñ Tuubaa di wax ji fa kullu xarinin bil maxaar yaxtaj kon bala ngay bala ngay bala ngay xam dëgg nit da xam kami da koy laaj kami àndal waaye ñoom ñaar boo xooloon seen diggante ak li ñu jëflante lépp day mel ne nawlonte gi ak ànd liggéey bi Sëriñ ñaar yëpp ànd ànd nañ ko lii may wax nag ci Seex Ahmadu Mustafaa loo ko loo ko njëkkee quarante cinq ba ci ba ba ni sëñ Fall toogee lépp ñoo ànd boobu liggéey li ma doon leeral léegi ci xelkom ji nga xam ne mooy ñett yooyu ma wax ne lan lu ci nekk sëñ Baroukhoune ji marqué na ko sëñ Saliou Mbacke yàlla yàlla yokk leeram daf daan wax ne kër sëñ Mor sa kër sëñ Mor Diarra bi kenn du leen liggéeyloo daal wax ne kër sëñ Baroukhoune dañ koy barkeeloo bokk na ci kon seeni réalisation mooy. tool yooyu saa bu ma saana noppi njabootu sëriñ Baara Xuré yi danañ dem liggéeyu liggéey bi nga xam ne moom la fi sëriñ saa yu mujj a njabootu sëriñ Baara Xuré ji ñoo ko mujj a liggéeyal kon damay wax ne sëriñ Baara Xuré ji mu marqué tukki bi ci bi sëriñ Tuubaa di mu gane jamono noonu nii la marqué li nga xam ne moom moom la sëriñ Tuubaa gënoon a bëgg muy sembuwaat ci yorom rek te mooy jumaa waaye noonu yi la marqué yi li nga xam ne moo doon lëggéey suñ Tuubaa bu ràññeeku boo xam ne njabootam doon nañ ko doxal ca ca ba mu ba mu yegg si loxo si Saliou ca njabootam mujj ko ko taxe xëy na li bokk na ci ay réalisation ñu joxe kàddu bi dellu si